ne mais ko politique bu doon amal si daaru marnaan mbooloo mi génnoon nanu ñëw teewee ko ndaje bi ay kàddu yu am solo jib fa jëmale ko si Alla moom mi di investir si li si benn bokk yaakaar. damaa xam ni moom li ko tax jóg mooy askan wi kon su ma jiitee mbooloo ñu yaakaar bokk leen jàppale ma gis sëñ Alla Sylla jóg. dañ teew tey ma kontaan lool waaye daf maa fekk nag ma jàpp lool ñàkkale lool nag damaa bëgg nga jàppale ma ci la ñii sama ginnaaw ndax dañoo yàgg a liggéey ci parti bi ñu naan APR. lii nag day firndeel nii candidat bi amul frontière ci zone yi ndaxte fii nga xamante ni moom lañ ko invité woon moo doonoon zone 6. coordinateur zone bi teewoon fi di Mor Gueye moom it am ay témoignages yu mu def Alassila nag li ko itteel mooy victoire waaye lu war a tax ñu war a mën a jox président Macky Sall victoire Alassila dellu si seen seen politique marché ndax li li li ñuy wax li ñuy santaane bu yàlla dogalee ngeen def ko ndax daf ciy am lool dañ mu jóg bu jógee daanaka kenn Tuubaa lay gemboos su yàlla dogalee mu gemboos Tuubaa nag sëñ bi ñaanal ko mu kon nag su ko sëñ bi ñaanalee ñun ñi nga xay noo nekk doon taalibe sëñ bi ñun ñoo ko war a jàppale ba mel ni danañ fexe ñaanu sëñ bi mu nangu ndax it toujours dañuy wax kenn ku ne da ngay wax ni man maa fal diw maa fal ñun nag ku ñëw fii lay kon ni la war a mooy ci nu gémb mu mu dem rek daal ndax it mooy tax yoonu murid seen baat gën a dëgër te ñun waruñoo booyee baatu yoonu murid man message boobu rek laa doon jàllale ndax kenn ku ne toujours da ngay ñu élection jàllee kenn ku ne naan maa fal diw kon nag ki am yaakaar na ñëw gémboo ci li ñu war a wax moom fexe fexe. ba mu daan rek ba mu daan rek. tàcc leen loolu waay. ndax ku na ni ci dëkk bi rek comme li soxna waxoon li li li ci bari ci li mu yéene jër ñu ciy leeral di ko lim daal yéenay xam ne daal bu jógee ngir jubal dëkk bi am fi yéene ñun ñoo ko war a dalal ba yéene jooju bu ñëwee. mën koy mottali waaye su ñuy def saa bu jógee jëm si ci dëkk bi tamit ñun bu dikkee ñu ko duñ la dalal bu yàggee day saa yi rek ndax it di toog ak ñoom conseil bi dañoo mën a tax Touba de noonu ko bëgg a def ak yow ànd ñoo yow ñun nag loolu tamit dañ koo war di moytu fexe ba jàppale ko 2017 ñëw na te 2019 la gën a soxla bu 2017 bu ñu ko mayee li mu bëgg balaa 2019 mu defal ñu li mu soxla defal ah, ñu ko ñu ko ak ñu ko 2019 bi man mi sax boobu rek laa amoon ci lu muy jàll nañ ko fexee teral nag nit muy bi la étape ñu wéyal ne meeku bi ba daaru minam foofee beneen mbootaay dalal candidat bii di Alla Sylla jigéen ñi am yaakaar loolu si moom nii lañ ko fësal yi. di xam ne Baye Alla ah ñun de ñun waa daaru minam moom la ñu àndal tay ak ndax moo fi def lu kenn defut ku fi def lu kenn defut. na bëgg nag bu soobee yàlla bu la 31 ngeen ngeen génn yéen ñëpp ñëw ci koñ bi ñu di leen yóbbu benn par benn ngeen di wote ji di sànnil bàyyi àll carte damaa bëgg nag kenn koo xam ne jëlagoo sa carte d'identité sa nga récupéré ko jox ma ma jëlal la ko fekk la fi ngay dëkk. ci sa biir néeg jox la ko wala ni ñuy watee. moom mi yëkkati waat na kàddu ci lu gàtt dafa seeni xuus. ba am ndam. man daal dama fay ñëw pour fasante yéen coloré lii ñu jublu nag ñun liñ ci yéene daal mooy jàll fexe ba def ndigal bi xëy ndigal la xëy ndigal waaye nag ginnaaw fu waay mën a jóge boo jógee président bu jógee lu mu mën tàmbali ba si tàmbalee si ñun nag ñoo mën a fexe ba ñi ñuy ñaan seenum ñaan nangu liñ nangul ñaan gi nag mooy ñu fexe ba sëñ bi li ñaan ñun ñu jàppale ko ci. ndax mu mën a nangu woote nag mooy tax li sëñ bi ñaan buñ ci jàppee ak ñaan boo ko nangu kon loolu dañu jot na nag dañ ko ciy tënk rek ñoo ngi daal di jàll leen di siyaaree nag mu ngi nii ngeen tàmbalee ko ci seeni i mbootaay yéen a xam nag bañ fas yéene di ko leb leen di te bañ koy séddoo 150 000 la ñu nemeeku nii bi campagne bi tàmbalee ba léegi saa su nekk si lu tolloog benn ñaar ñett juróom ba fukki kafe moom mii dina ko amal ak ay nemmeeku waxtaan ak askan wi ñu gën koo xam si visite de proximité waaye nag lu yem foofu da jël ci gafakaam lu takku bàyyi ko fépp mënt dem ndaxte yu mujj yi rek fu mu dem dina fa bàyyi ñeent fukki junni sans yeneen yi muy joxe askan wi nag gis nañu ni ku jàpp candidat bii sa yaakaar du tas.